ginnaaw nag ba ñu siwalee résultat yi nga xam ne nag moo jëm ci lépp loo xam ne jëm jëm na ci élection yi nga xam ne moom la ñu génn ñu daan ni Macky Sall daal dinay amaat beneen mandat waaye ginnaaw bu ñu wéyalee nag ba dugg fi nga xam ne nag moo di Mbàkke foofe itam yëngut gi ku ci nekk doxal sëg liggéey waaye itam askan bi di ci ku ci nekk di ci jox sa xalaat sëriñ bi moom jàpp ne jamono ji li nga xam ne nag moo di élection yi gannaaw résultat yi génn na ku ci nekk dangaa war a dellu ci li nga nekkoon mais jéem a dal nag dellu seen xel donc parce que xam ne ni lay mën a demee am na ñoo ku nekk ak nañu soit ñoom soit woon nañ Idi wala Sonko wala keneen mais yàlla dogal na kii la yàlla teg ci bopp ci bopp réew mi mu war fee nekk donc li li ci des mooy ñun ñëpp nag ñu ànd moom liggéey la ko réew mi parce que suñ réew mi Sénégal suñu Sénégal la du Idi moo ko moom du Macky du keneen askan yëpp ñoo ko bokk donc ki ma woote ki ma àndaloon gañewul du tax ma nag ma tëb di yàq wal parce que li ngay yàq yow yow yàq moom sa sa yëf mi ngi ci biir du ma toj du ma rajaxe def dara damay toog normal parce que comme yàlla dogal na teg naa ki ma fi bëgg a teg dama koy liggéey nag jàppale ko nag mooy solo si mais wër di wax ak di dekkoon affaire yooyu noonu moom di tase cortège Omar Ndiaye Angloma ak ñi na ko faa ràññee noonee la wëree mbedd di nga xam ne nag moo di kër monsieur le maire bu Mbàkke di Abdou Mbàkke Ndaw daal di fësal li nga xamante ne nii moom la sénégalais yi def génn dem woote ji ci jàmm dellu seen kër ci jàmm résultat yi ñu joxe ci jàmm te benn problème amul. ma wax ni ñun candidature bi ñu àndandoon wax naa ko répété ko répété waat ko Serigne Touba miñ ñu ko bàyyee woon nag. wane na boppam dama ni mën nga nax murid yi. yenn murid sax laay wax waaye Serigne Touba kenn mënu koo nax am na ñu def au lobby wër Serigne bi créer ay lobby ngir bëggoon a jël benn def ko président de la République bëggoon a jaxase tarixa yi. ndax ku dund juróom-ñaar fukki at. xamoo kañ mooy sëñ Touba ba Idrissa Seck âge bi mu am door a xam sëriñ Touba ñëw bëgg a sa ñaari tariixa yi loolu sëñ Touba dama ni la mën nga nax murid yi waaye sëriñ Touba kenn mënu ko maam Moussa Ka dani woon bàyyi leen bu ngeen demee Touba nuroog waa Touba te bu ngeen delloo ci réew ma mel ni kooba mais sëriñ Touba kenn mënu koo nax gis nga kooba yooyu dañuy solal seen bopp rek waaye El Hadj Malick mooy ñi nga xamante ni nii Idrissa Seck parce que dama ni mënoo dund juróom-ñaar fukki at jàng li nga jàng ak xam-xam bi mu wax ni am na ko toog ba dem ba retraité door a xam Sëñ Tuubaa kon li ko indi woon ci murit gi mooy naa leen nax pour nekk président de la république bu ma paree sax nekkiwaat la ma nekkoon wala ma nekk leneen mais loolu mu doon jéem Sëñ Tuubaa wan na ko boppam mën ngaa nax murit yi mën ngaa nax donga waaye Sëriñ Tuubaa kenn mënu koo nax. gàcce amul. ndax suffrage bi président am fii ci ci département Mbacké mosu ko am mu am nag yenn chefs religieux yoo xam ni dañoo nekk ci côté sëriñ bi di influencer ay nit ñu bañ a wotee bi Galas Kaltoom kay nekk na fi député sept ans mës na jëriñ régime bi dara ba daanu ñu wàcce ko mu jël ay gone dem ci kër xalif bi di yuuxoo premier ministre sëriñ Moussa Nawe nit. pour mu nekk président pour samay problème réglé sëñ Touba nekkul foofu bu fekkee day jàppale na jàppale ki defal la ki defal maam Ila Touba 416 milliards. jàppale na jàppale ki def ki ki ki def euh, euh, hôpitalu 45 milliards bu fekkente ni nii day jàppale na jàppale ki ki ki xalif zaal de murid ni ko bàyyi nañ la ak sëñ Touba mënta am benn influence bu mu def ci murid yi wala ci département Mbacké bam bam bañ woteel ko. ñooñu xam nga xam nga nit ku daanu ba xalanku. jël bi seddagul kooku danga koy comprendre mooy nit ko accidenté ba nekk daal le coma yem lum lay wax ci bu nekkee dans le coma kontul dans le coma lañ ne mais buñ milikoo ba seen mbokk yóbbu leen seen kër ba jox leen seen i garab sëlëm xam ne leen waa ji gagné largement la gannaaw loola itam bu Mbàkke di monsieur Abdou Mbàkke Ndaw daal di koy feelu moom itam jàpp na jëmoon ji ndam lu yaatu lañu am nit ñi dafa laaj ñu communiquer ak ñoom leeral leen de communication bi dafa des lu bare bare bare mais nag li am solo mooy am na ndam te ndam loolu ki ñu yaakaar di suñu kilifa euh, Cheikh Mouhamadou Mountakha li mu wax na dafa leer bàyyi naa la ak Serigne Touba te bi mu ko waxee mu dugg ci barabu Serigne Touba ñaan bi mu ci jógee xol yëpp ànd ak moom kon lépp lu mën a xew rek nañ jàpp ne phénomène la boo xamante ni c'est à corriger te it dans le temps incha allah dañ ci liggéey bu baax. gannaaw loolee nag mu daal di ñaax ci askan wi ci ak dal ngir ku nekk mën a dellu ci li nga nekkoon